kati Bignona ni Saaful kati Jalunay kati Fooñi Fooñi Kombo Buluuf Ngomre Saaful Buróom candidat Diomaye Faye fii mënoon nañ ci bañ a ñëw lii buuñaa rek la parce que wax naa ko biñ fi ñëwoon élection législative daatu bi ñuy na lee bañ fu tiig premier tour à 90%. parce que bi est bien Ziguinchor de 80 c'est là que j'ai dit 90 parce qu'il y a même 18 candidats il faut que nous baillons 10 pour cent démocratie. kon nous ngi suñu imam imam Fassou

moy message yu la paix ndax suñu dajé fi tay jàmm moko andi su jàmm amuloon ñetti ni duñ fi dajé à fortiori des milliers de personnes à deux heures et du matin kon jàmm ci la lepp xaj ñun nag nitu jàmm lañu président daf leen wax ni nous en Casamance on a vécu une situation difficile. Nous ko xamul des milliers de personnes des filles qui ont été ci ay miin ñu mais ceux qui ont payé le plus lourd tribut sont les avancés eux-mêmes Donc il faut que ça s'arrête j'avais pris un engagement ici en 2019 vie du place bi Mais si les Sénégalais m'avaient fait confiance nous toog 2022 nous avons y a des drones et des canons qui tombent encore dans le Nord Sira Nous la leen Diomaye wax ni nous ngeen ñu Nous ba dénk ko Nous ñu duñu dès les premiers mois de notre magistère on mettra fin définitivement à cette situation qui a trop perduré

kama ñëw raku kama ñëw raku kooku nga rek pipi Abdourahmane fii dañ am cosaan Joola dafa wax ni toog wala toogaay mooy andi xamante xamante mooy andi jàppante jàppante mooy andi bëggante loolu cosaan la fii moo tax fii lépp dañ ko yóbbu ci pénc mi mag ñi toog xale ñi toog bu ñu paree yónnee ci jigéen ñi fii moo njëkk am démocratie li ñuy wax ñu jox jigéen cëram ma ni loolu mooy démocratie de concordance. voilà bu ñu paree yónnee ci jigéen ñi laaj leen seen xalaat ñu wax seen xalaat ñu boole ko ci xalaat yi loolu ci société Joola la kon fii terre de la sénégalais bu toog fële ne ay rebelle ñoo nekk foofu ay laykat ñuy nekk foofu da nga xamul lu xew fii.

loolu c'est pas l'honneur du Sénégal La politique biñ ci lal rek moo tax mu yàgg ci politique léegi mu réglé la Casamance a besoin de paix il faut que ça cesse et le président Diomaye avec toute l'équipe qui va l'accompagner se donne un délai très très très réduit pour mettre définitivement un terme à cette situation ba d'autres nous ñu nous ay ndël la ñu tàkk Casamance jàmm jooju nak lay waxee fi Bignona lañu wo Sénégalais moy mooy ñu tàppe xol yi Bignona a trop et Bignona a enregistré le plus fort taux de personnes qui ont été assassinées parce qu'ils disaient simplement non à la dictature, ils disaient non à la persécution. fii Bignona moo ëpp ci Sénégal ba mu nekk Sénégal que c'est des martyrs de la cause et c'est pourquoi nous n'avons pas le droit nous on n'a pas le droit de ne pas réussir parce que si nous échouons, on a trahi ces gens qui ont donné leur vie pour ce projet existe. hommage. Ce n'est pas de régler des comptes, mais c'est de transformer qualitativement ce pays et en un temps très court. Bouboba, leur sacrifice aura valu la peine. je suis

mais pour nous dugg ci logique bu ne tay tay tey dañuy fayu lo daf ñuy tardé kon ñun coalition jomay président ci jamm lañu woté ci sutura la ñu ci xamanté bëggante jappanté lañu woté Sénégal lolu mo fi on a le cousinage à plaisanterie kii suñu jaam la Sénégal diggante séeréer ak joola diggante séeréer ak alpulaar boo demee ci sant yi diggante Jóob ak Njaay diggante ñun buur ak ana Baaji Kounda bi ak Jéba Kounda nous avons la culture la plus riche et la plus tolérante du monde Nous loolu la Nous xamoon xew ces 12 dernières années et particulièrement ces 5 dernières années c'est pas ça le Sénégal et il faut qu'on revienne fini fini mami ñu maam yi bàyyi woon mbir yi mooy bëggante jàppante di muñalante bokk loolu xalaat nga nangul ko c'est ça la tolérance et je terminerai par dire moi wax ak yeneen candidat yëpp nag nañu rafetal mbir mi nous sommes en compétition programmatique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

Nous les candidats n'ont questionné le pays et présenté leur programme Nous pouvons na un débat programmatique presque organisé. nous ko agriculture ci santé ci infrastructure ci énergie ci ressources naturelles ku avons andi une contradiction am mais nous minute ñu dëkkee nous ñun ces dernières années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

Sénégal jàmm fi xaj Amadou Ba a tout fait pour que Macky Diomaye ñu bañ génn tout fait parce que lui la il a tout fait et depuis quelques années toutes les attaques contre ma personne Amadou Ba ma ne ci gannaaw ñi muy ay livre ñuy saga di attaquer ma vie privée ñi muy ci média yi la différence entre nous c'est parce que moi, je suis un homme quand je vous parle avec quelqu'un, je reviens en face de toi, je te dis ce que j'ai appris. lui, c'est un dernier avertissement. C'est un dernier avertissement. pendant qu'il est temps. ne Sénégalais Voyez, comme là, les sénégalais nous un fonctionnaire multimilliardaire pas possible. je suis venu vous confier mon petit frère qui est rakk sama Qui atteint Sénégal qui attend l'Afrique? on a travaillé pendant des années on ne peut pas avoir mieux que cet homme-là Je ne waxam pas ce jëf ci je connais c'est pourquoi je l'ai choisi Comme le combat que nous avons entamé depuis des années Qui est la ñu nos premières victoires Qui nous avons am nos premières victoires la première commune pour gagné au Sénégal en 2017 c'est la commune de Balingor ici dans le département de Bignona cette première victoire qu'on a démarrée à Balingor c'est celle-là qu'on va achever le 24 mars par une victoire finale sur toute l'étendue du territoire et dans la diaspora par une victoire au premier tour du candidat bassé Diomaye je vous remercie